waaw euh, loolu dama koy condamné toujours mm-hmm. te duma ci muus a ànd ku nekk mën nga def manifestation mais bus yi bu ñu ko taalee ñi tax ñu koy taal duñu ci dugg seeni doom dugg ngu ñu ci bus yi bien wu Sénégal la ay sénégalais ñoo koy jël kenn amul droit yàq li nga bokk ak ñëpp ci reewande la bokk bus yi Macky Sall moomu ko waa pouvoir bi moomuñu ko man moom ma ko parce am naa oto keneen moomu ko parce que am na oto Biray moomu ko am na oto mais ñi koy jël amuñu oto te dañu am droit pour tukki gis nga bu ñu amee ay entreprise privée ngi yëngu ci wàllu transport ñuy def ñuy def concurrence ci wàllu proposer nit ñi ay bus yu luxe Dakar dem dikk ci jamono maître Moussa Diop ñëw initier loolu yi fi dox am beneen directeur bu remplacer maître Moussa Diop yi fi sëngee maat beneen directeur bu bees ñëwaat ñu encouragé ko mu relancer waat secteur dem dikk waaye boo yàqee biisu Dakar dem dikk mais alalu kan nga yàq alal bi Sénégal ñëpp bokk nga yàq loolu kenn amul sañ-sañ bi ci réewande la bokk man loolu laa nangu que ñi koy def bu ñu leen jàppee dañ leen a war a sanctionner bu baax li may dénoncer mooy xale buy manifester ci mbedd nii nga jàpp ko jàppale ko kiiwul du ñooñu ay détenus politiques lañu innocent yi dañ leen leen bàyyi parce que xale ak manifestation ñoo ànd. mais taal oto mais loolu yàq bu jéggi dayoo la dafa jéggi dayoo te kenn du ko cautionné te kenn mënoo fexe ba ñu tàccu la ci bisu Dakar Dem Dikk Macky Sall da ko moom waa benn bokk yaakaar dañu ko moom waa Pastef dañu ko moom amul kenn ku ko moom xaalisu contribuable bi la mu ngi mel ni benn député fayee ko ràmb la nga këf xaalisam taal ko ci mbedd noonu la mel xaalis bi ñuy fayee député bi xaalis boobu la ñuy jënde bus bi te ñiy jël bus bi boo gisee ñi nga xam ne seen am am dafa yemamaay wala ñu préférer dukki benn tukki bu luxe parce que offrir nañu leen benn condition de voyage bu xaw a am solo yàq alal bi ñëpp bokk rewande la Birahim ci ci Dakar dem dikk boobu ñu génnee ab communiqué ngir wax ni tey ci euh, talaata ji euh, juróom euh, ñeenti fan ci weeru may du ñu fas yéene daw mu nekk loo xam ne dogal boo xam ne jël nañ ko gannaaw bus yooyu nga xam taal nañu ko dem ca Mbour mais ñoo yay mm-hmm. ah, bu dee ñëw ma ne su ma ubbee sama commerce. manifestation wala lu nuroog manifestation bu amee ñu yàq sama commerce. waaw hmm. ah, du ma ko ubbi nag. ñëw tukki nag tey gis nga kii taal bus yooyu. ñi ko taal leer na ma ni dañuy jël bus yooyu. dañ koy jël. léegi tey nag ñu ne léegi nag far bus amul. nga ñëw Ndiaga Ndiaye bi ne la yokk naa sama paas après nga naan non Ndiaga Ndiaye duñ yokk seen paas parce que yaa taal bus ba. Hmm. ba bus ba ki ña ña ñooy gérer bus bi. Hmm. muy transport en ñëpp ko bokk. ne ni man dama génnewul bus donc kan ngay sonal mm. ñi nga xamee ne dañ comme li Mansour di wax peut-être que mm. cent cinquante la ñu am wala deux cent francs ñu mm. jëlee bus mu yóbbu leen ba fu ñu bëgg dem am na tey ñoo xamee ne bus yooyu moo leen doon yóbbu ñu mën a jël ñu dem ñu am euh, difficulté am na si ñu oto Mansour yaa am naa oto am nga am na ñu am oto ñoo xamee ni comme dans tous les pays dañuy teg seen oto pour dugg bus parce que toll nañ jamono joo xamee ni peut-être am ñu jógu essence c'est pas parce que am ngaa oto que am naa essence de wala mu am njëgu essence peut-être dañ maa may oto sax est-ce que am na essence bus bi laa mën na jël. c'est mooy gën a yomb. wala su ma yoree sama oto mënuma maa gaare ville. wala ma sonn am na fu ma mënul gaare. wala am naa difficulté sama oto ma jël bus. loolu si ñi am oto mais am na ñoo xam ne tey du ñu du ñu jeex ñu amul njëgu oto. Mm. Euh, bëgguñu dugg car rapide wala ñu dugg Ndiaga Ndiaye amuñu njëgu taxi ñu ne ci bus bi laay dugg peut-être naa toog am jël sama yoon dem fa war a dem. gis nga taal muy bus. muy ba ci Auchan je ne fais pas publicité. kay liggéey Auchan gisoo ci benn tubaab bu nekk biir Auchan. kay fayeeku Auchan exclusive supermarché grande surface yi fi ne. ñoom ñëpp ce sont des sénégalais. xam nga kan mooy jaay Auchan. Auchan xam nga fu muy jëndee wala exclusive xam nga fu muy jëndee dugg naa ci sama benn mbokk boo xam ne dafa yore ay toolam di def transformation mango di ko def ci confiture pot confiture. madd di ko def pot confiture du la ko jaay yow parce que amoon njëgam pour mu jaay la ko en groupe mën na la jaay benn benn mais da koy jël exclusive supermarché ne ko kaay ma ma jënd ko ci yow keneen ne ko euh, Auchan ne ko kaay ma jënd ko ci moom muy gañe dara di ko mën a séddale ay mbokkam mhm. am na kuy jaay salaat kuy bay salaat salade fële ca euh, Malikunda mhm. mënu ko jaay ñu nekk Malikunda parce que peut-être dañu naan mënuñu ko jënd mhm. yow peut-être mën ngaa soxla tey suba keneen du soxla benn entreprise na ko léegi xam lu ñuy def boo bayee hectare u salaat ma jënd hectare u salaat mais yow kooku jàppale nga ko. Ah, lu tax nga bëgg a taal Auchan boobu. wala nga taal boobu. wala nga taal bus wala nga taal kër presse parce que dañu ne ni non dañ cee tudd euh, diw. te nañ ko tuddee neexu ko nga dem song ji ko. au nom de quoi équilibre de euh, xaw ma nu koy te bëgg fi indi terreur. Mm-hmm. terreur nag ku ko indi am équilibre de la terreur. Mm-hmm. man boo ma xubbee. am naa possibilité xupp la yow ci xupp boo xamee ne mm-hmm. euh, li metti ci yow lay jógee mais pas ci man mm-hmm. Lamine Senghor rapidement euh, tàmm nañ ko di ko gis saa su ne bu procès amee euh, Ousmane Sonko